Ono Jehna, Joy Jehna, frustration Jehna. At yung Financial Service. Sitjubanski Bire. Shona Jehna. Dugalsi ay sa Smile Bari. amu lo, thank you. Ay smile, ay si bumutsik sa sabadi. Esi Bumutsit, Sasabadi. Kanak Dabal. Kanda Mahara Macharai. Afia rek ñu ngi fii nag biir réew mi foo mën a xalaat si biir Gambia ñu ah, ngi fa am suñu place koo na boo dem ñu ngi fa Afia Money Transfer ñu ngi lëkkaloo nag ak transfer services yu bari fii si biir dëkk bi xaalis boo mën a am si foo ko mën a amee ak ku la ko mën a yónnee si Afia ñu ba mu jeex kon nag mbokk yi xool leen ñu 30 mbette it 24 20 ñun nag ñu ngi fi nga xam ne mooy pipeline mos bi opposite foofu la ñu nekk ak Afia seen jaale jéema alhamdulilahi rabil alamin mbokk yi santaat yàlla bu baax julli si yonent bi sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant su ñaari waajur yi di leen gërëm di leen ñaanal yàlla xare leen ci àjjanay firdawsiya di santaat yàlla bu baax amaan mbégte ak kontaan rek toogaat fii ci Gambian Talents si seen biir Gambia su ñu baaxoo di leen ko indil Monday ba Thursday ah, ñu di ko def every time rek di si waxtaanee koren issue ak lépp li nga xamante ne rek ñu ngi ko jàmbat ci biir réew mi dañ koy indi ci biir Gambia léeg-léeg ñu indil leen ges tegal leen ko fi ñu waxtaanee ci waar bu muy demee ah, tey nag maa ngi fi toog ak ki nga xamante ne mooy Sirif rek ah, moom fa ñu war a seexa waxtaan bi rek ci biir Gambia Sirif ne kontoon um, fay naa la Ramatoulaye um, jërëjëf hmm. maa ngi nuyu mbokk eh, yi ñu nekk di setan jep Gambian yi ci eh, bir deka bi ci eh, biti yëpp ma ngi nuyu yëpp di len santa di len garam di len gërem di len dalaat si programme bi nii di Gambia biir Gambia Show mhm. Jeff Sirif di nga ne yaa ngi dalal gaay latura ko nga kay ka barama baake ah ya, don't you don't ya <laughs> kana main wala baake bul wori bobu boobu xam nga rek ah, as long as su ma waxee rek nit ñi dañ dee dégga ah. you know xam nga ne dama dee jéngu language yu bari noonu la ak te dégga laa kasa ab dante xool rek moo ma jaxle moo la jaxle te moo gën a yomba nag xool kay ma jox la sigrit boobu xool moo gën a yomba dinaa wax fa ba mu jàngal la pol dina am solo ko defee na bee jàngal la séeréer dégga nga séeréer non tamit moom dégg <laughs> naa bi yow séeréer <laughs> moom ko <laughs> baax na su ko defee rek mbokk yi noonu la euh, comme niñ ko dee defee rek ci biir mm-hmm. Gambian Talents Promotion ñun ñëpp benn lañ su ko defee rek nii la euh, comme ni ma ko dee waxee saa yi nekk li ay di jàmbat euh, te li jàmbat ci réew mi ku ne xam ne coow lu bari li nga xamante ne moo jóg lumbe réew mi yëpp kaatong mbokk yi ne ñëpp di ko waxantoo foo foo ko natt rek weesu na ko muy kees bi nga xamante ne mooy kees yi bop Keita bi nga xamante ne ah, comme niñ ko dee waxee saa su rek dafa involve yu bale bari kees bi nag ah, comme niñ ko dee waxee luñ si dee bugg a wax sax lu sori ndaxte mhm. mu ngi euh, code bi waaye rek euh, nag euh, du tere li nga xamante ne code bi def nañ ko ba pare développement si nga xamante ne am na baax na tamit ñu di ko yëgal askan bi ak fu mu toll ñu di ko waxtaanee dina nekk li nga xamante ne lu am solo la ku ne xam na ne bopp fi mu nekk nii jàpp nañ ko ñaari at Euh, su gisee ñu jàpp ko ñaari at comme nuñ ko waxee ci njëlbeen bi ci beginning bi mhm. because of the alleged rape case bi nga xamante ne allegations si nga xamante ne mu ngi si kawam euh, jabaram ex jabaram mhm. euh, mu ne dafa rape rakam comme ni mu ko waxee daf ko tuumaal ne dafa rape rakam mhm. understand nga ñu jël ko rek yóbbu ko yóbbu ko mail tu mu dem rimaal muy xaar pour ñu sentence ko muy dem court ñuy ajoñ court bi ajoon nañ ko fa thirty three times now understand nga Mm-hmm. Euh, démba ñu gis ne euh, aftarol euh, gars yi toog nañ fi ñu ne léegi nañ indi DNA bi nañ def DNA mm-hmm. pour ñu xool ndax bopp moo jur xale bi mm-hmm. wala jurut xale bi ci diggante bi ñuy waxee ne nañ def DNA test bi yooyu noonu ndok ñëw dal si koo xale bi xale bi ñëw dee nit yi baree bari comme nuñ ko waxee nit yi xool ne xale bi si circonstance si nga xamante ne moom la dee négligence am na fa I understand. Wow. So ham rek kung kom numa ko study. Um nga case B, mm-hmm. um is rape case. Yep. Um, although duma si walu bari mm-hmm. because mm -hmm. mung si court bi but already lo antene hapun na already mm -hmm. um two years back mm -hmm. this bi happen um ñu bari dañ lay complain tamit uh, di wax dene uh, lanata tax ko lanata tax ko but um, it's as a result of criminal uh, criminal yeah. case la So if you are alleged um, for an uh, for such an act, mm -hmm. um, definitely loi bi dula day nangu pour ñu bail It's unbelievable. it's, it's a case that is unbelievable. mm -hmm. uh, but the question is um, duration bi boom jël mm -hmm. pour pour ate mu am mu because um, case that is unbelievable. obviously it should be a case that uh, the, the, the justice system should be able to do, uh, deal with it within a few duration of time rek yeah. ñu so that ku nekk da nga gis ne understand da nga gis ne ne uh, uh, ku um, perpetrator bi dina xam uh, stand sam, ndax innocent na wala feel na guilty mu xam ko gaaw loolu dafa war a gaaw so loolu is raising a lot of concern nit ñi ñu ngi si wa nit ñi ñu mm-hmm. ngi si mer sax mm-hmm. understand but when it comes to xale bi comme xale bu gaañu recently Um, yal na ko yàlla xare àjjana Muhammad mm-hmm. so boobu da ngaa gis ne ne because man déglu naa uh, uh, déglu naa mm-hmm. um, lady bi lady bi mm-hmm. moom lu mu doon explain déglu naa ko but if you listen to that carefully you understand that there is a negligence yeah ba pare way he was saying it ni ko doon waxee moo wax ne comme dafa mel ni comme moom fiilut ne comme he don't even feel it Euh, comme nu xale bi deeyee comme ni mu ko doon expliqué si audio bi nuñ ko gisee euh, dafa mel ni comme ne soo comme ni nga ko waxee daal négligence am na si sàggante bu rëy am na si parce que euh, nit mënuloo koo bàyyi fàtte ko ci moto for four hours yaa ko fa bàyyi yow te remember wuloo ne te sa sa doom yi wàcca nañ yow remember wuloo ne yow xale yaa ngi ko bàyyi ci biir moto bi for four hours mm-hmm. after ngeen doog a réalize loolu ba kenn moo wax ne ku mun a fàttale ko mobile am mm-hmm. kenn moo fàttale ku ne mobile am bi mu ngi biir moto bi mm-hmm. pour mu dem jëli ji ko bi mu demee si la fekk xale bi mu ne bi mu fekkee xale bi fekk ne xale bi mu ngi wëccu moto bi yëpp a because fekk suffocate na already there was no oxygen there was no oxygen so da ngaa gis ne ne even mag tëjal mag si biir moto rek nga ekati nga you know silweer yi yëpp nga bàyyi ko fa few hours rek léegi day mu dee because su amut oxygène du mun a survive mhm. so da ngaa gis ne ne uh, the child even went through um, some some some uh, very difficult condition su dee mag la sax da ngaa suffer you understand so that is something uh, it's, it's very bad it's very mhm. bad but um, the question is naka la nit di mun a faate nit si biir moto like that this is the question everybody is asking uh, it's a question mhm. that people will keep on asking all the time because it's something that is very very important mm-hmm. so now when it comes to again because we are talking about two things here mm-hmm. when it comes to again the issue of uh, uh um, um, dna taking mm-hmm. the dna uh, of the of bob and the the boyfriend of the um, the, the the girl mm-hmm. that one also if you look at it uh, they are saying the court said the court gave an order on the saving Mm-hmm. on the 7th of July la code bi joxe order ne pour ñu ñu ñu jël blood sample yi xale bi waaye da ngaa gis ne ne according to different sources that we getting is that the the the samples were collected before the order which also is raising a lot of questions mm-hmm. also understand so da mm-hmm. ngaa gis ne ne soo observe <laughs> so ko observe properly definitely it is raising a lot of uh, concern that one also that one also is there so coming back to or oh, you want to talk about that child protection alliance issue mm -hmm. which is just no today. you can yeah. continue yeah mm -hmm. coming back to that <clears throat> so this is what you give child protection alliance tamit ñu jóg fele so da nga gis ne mm-hmm. you have people who are supporting Bob who are standing for Bob you understand mm-hmm. you have uh, uh, people they yeah, because uh, am i am na fuñ binda yaa ngi gis si si lii bi ñu justice for mama. Mm-hmm. some people are advocating for that. People are advocating for that. People are advocating for the uh, the, the, the victim. Mm-hmm. You understand uh, the the the uh, the lady. You understand. Mm-hmm people are advocating for the um the baby Mohammed also. Mm -hmm. People are advocating for uh, Bob Keita also. Mm -hmm. You understand? And you have the state also is there and you have mm-hmm. the defendants also who, lawyers who are also defending the uh, the uh, the um, the I can't Bob. You understand? Mm-hmm. That is lawyer Lamin Escamara. <coughs> who are defending Bob. So the question is: This Child Protection Alliance, this incident, the time this incident happened, happened. and now mm-hmm. has taken uh, uh, the duration Almost is somehow now, yeah close the, to two weeks. Now. Yeah, the duration is somehow, mm-hmm. but they perhaps they might also have their own reasons. Mm-hmm they might also have their own no. reasons mm -hmm. for not talking very early. Mm -hmm. You understand? Mm-hmm. You, but, you, want to say something? But um, uh, Sirif, mm-hmm. uh, niya je mo jama become farin sign. Iko tina mm-hmm. why right now Child Protection Alliance be fintikan sign because natara they're here for everybody. Uh, Ning si fa katale. I think mo be ko inyanta finti la birin juna munoon nañoo yàgg a so su fekkee ne dañ fi protect uh, the rights of child understand mënoon mhm. nañoo génn mënaate na imam finti birin juna mhm. waaye naaw lu tax ñu xaar ba léegi ñu ne dañ dañ they calling for the immediate um, mhm. eh, naka la investigation uh, surrounding this child's death understand nga so nit yi loolu lañ leen meree ñoom tamit because let me tell you one you see Gambia xam nga depuis kañ la man depuis kañ personnally kañ laa gën a gis child protection alliance ñu binda sax seen web even seen facebook page sax pour ñu binda fa dara sax xam nga depuis kañ laa ko gën a gis because ñu bari yàgg na because I can say I'm not going to say they are not doing anything, mm -hmm. but but people are not seeing their activities. Let me tell you, you have a lot of uh, uh violations of Involving children's rights in this country. Yeah, that keeps on happening. You understand? for the past mhm. years. te yow soo wàccee tey nga dugg si garage yi dangaa gis xale yu ndaw ñoo amee ay palaat di jaay xale yu ndaw ñoo nekk di langa moto yi. Mhm. nekk ay apprenti. you mhm. understand that one is a violation of children's rights and people are using them. where is child protection alliance ama me something ay ah, ah, ah, dole nyapinkan kirle munat eh, naga na ite utol mam finti ñu ñu wasi tamit waaw exactly kon dañ dee xaar ba affaire si eh, jaala comme surwaal kaa fo ñaameng dañ dee bàyyi ba jaan bi romba hmm. ñu toppa si yoon bi di si dóor di si dóor banta waaw comme lu ma doon wax hmm. mu nekka ñoom ñoom sax man seen responsibility bi man loolu laa understand because comme lu ma nekka di wax nii even if not this thing hmm. Ah, ñoom seen liggéey is to stand for the children to protect their rights you understand but what I'm saying in fact even without this case that? yes are they doing that are they doing that how many children eh, violation of the rights of children are happening in this country mm -hmm. that child protection alliance is keeping quiet about mm -hmm. you understand so personally me i'm not surprised seeing them you know coming out with this press, yeah, because press release after two weeks mm-hmm. nia je ñu génne seen press release bi depuis léegi di pressure bi nga xamante ne moo soraan this case nit yaa ngi ko binda all naka la all over nit yaa ngi ne di child death should be investigated naka la xale bi deeyam bi nii lu ko ëmba war nañ koo xoolaat bu baax a baax naka la deeye ak yooyu noonu war nañ koo toppa xoolaat ko bu baax a baax ah, moo tax xam naa pressure boobu noonu Facebook beeg social media yeeg yooyu noonu ah, si plateforme bu nekk ñu ko faa def ah, moo tax xam naa gars yi génn nii waaye waroon nañoo génn nit yi ñu ngi doon moo tax right now ni nit yaa ngi wax ne Ah, ndax ñoom time bi lañ war a génn. that is it xam nga. Mm-hmm. comme coming back to even the media. Mm-hmm. our work. yeah. that is showing you how important media is. Yeah. So say they guys in press release be correctly. They are relying on on the, on, on, on, on media reports. reports. They yeah. are relying on that society mm -hmm. press mm-hmm. release. So in, um, an era bo xamantene ñu ci era bo xamantene um, social jamono social media yaa mm-hmm. understand so uh, tamit fu mu nekk nii Gambia tamit ñu ngi try ñu ngi trop so mm-hmm. loolu bokk na si so that that one I can say uh, uh, war nañoo congratulate suñ boppa si loolu ñoom si loolu lañ rely but we are saying even without that ñoom seen lanay seen pour make so xale yi waaw nekk di dal xale yi ñu mm-hmm. make so ñu face ko at the right time Mm-hmm. Lana mm -hmm. seen own uh, mechanism child protection alliance lana yeah. seen own two weeks I think two we weeks need is to, very long we need to invite them to come over yeah definitely yeah. solely mm-hmm. um definitely yeah. we will do that ba léegi rek gars yi mun nañoo call si 794 9214 794 9214 mun nañ see call ñoom tamit pour joxe seen contribution mm-hmm. after all um, Yusufa, mun na moo cagaale rek uh, uh, reaction of the people mm-hmm. nit yi nuñ gisee eh, case bi yóbba barool mm-hmm. parce que génnoon nañ tamit waxtaan ak nit yi mm-hmm. naka lañ ko gisee ñeneen yu bari tamit wax nañ ne eh, affaire yi xale bi ni mu deeyee sàggante si am trop nekk li jën gis nañ ko fa eh, parce que nit naka nga ko mën a fàttee si moto ñu bari loolu lañ nekk di wax ne dañ ko ñaawlu bu baax a baax a baax ñeneen yi tamit ñu ngi wax ne affaire yi case bi dañ ko war a teg ñu bàyyi yëpp mu sedda xam nga ñu seer naka lañ naka la jubóoyee ñu génnee ñu Frida Young Man mm-hmm. su ko defee mu mun a continuer liggéeyam ak yooyu noonu ñeneen ñi ñi ngay wax ne tamit justice system bi dañ ko war a bu baax a baax a baax foog naa ne loolu am na solo Sirif mm-hmm. Mm-hmm. Wow, I'm not sure. People are entitled to their opinions. Yeah. Although they are, they have no right to be assuming mm-hmm. the outcome of the case. Yeah. Amma lolo mo tanyura de wane ne sudara neke de hapon nung si court bi mm-hmm. um, warulo si discourse. Yeah. The whole sense um, uh, behind that is you have to be very careful not to talk about uh, the, not to assume anything. Mm-hmm. You understand? And also, nini send confidence justice system be also ah is the responsibility of the media pour ñu mm-hmm. make sure for public be there You am you am hope si justice system bi loolu uh, responsibility media la Why also aside from that also people are entitled to their opinion yeah and and this is something that is happening it's not okay it's not okay for somebody uh, to be locked up there for, for, for nearly two years, mm -hmm. two years, you mm-hmm. understand, mm -hmm. without being given a, a, a, very fast or quick trial. Mm -hmm. It's not okay. So you have to expect that people will say something by force. Of course. cewa. Yeah. Nini mm-hmm. Lolu um is part of um sun responsibility la. Responsibility la tamit si ñoo xamantene uh, uh, human right activist lañ tamit. Mm-hmm. Is there I gëna am nga this is the time we needed the most. ñun mm-hmm. uh, man comme ni ma ko dee there are so many so called activists in the Gambia. Issue si nga xamantene moom lañ war a génn ñu wax ko. Yeah. Duñ dee wax si yooyu yi nga xamantene nit yi it's not even necessary pour ñu talk about ko yooyu lañ dee génn ñu wax mm-hmm. mm-hmm. yaa understand parce que lii sooy xool nekkut uh, uh, about this uh, Bob Keita case mm-hmm. rek parce que there are so many young people yi nga xamante ne ñu ngi mile two ñi nga xamante ne seen file sax xamatuñ ñu ko teg mhm. te ñu ngi war a dem court ñu ngi leen war a jooj still now ñu ngi under trial ñu ngi leen teg remand mhm. eh, te te saafaguñ seen jël taam bi léegi ñeneen i tëdda nañ moo daan three years ñeneen i tëdda nañ moo daan five years mhm. te ñu ngi war a eh, ñëwaat ñu yóbbu leen si court yi ñeneen i seen faal si sax xamuñ so lii so fii si nit yi ñu ngi génna not about bopp rek it's for the whole Gambia pour ñu ñëpp la understand justice must be served uh, te justice bi warta nekk favor of anybody mm-hmm. Wow, loolu parce que soo gisee mm-hmm. nit yi ñu ngi mer tamit soo gisee eh, nit ñu ngi ñu ngi ñu ngi génn ñu ngi wax fu nekk uh, right now ni ñun ñëpp kenn ku nekk kuy wax you don't know whether Bob is eh, is innocent or mm-hmm. is guilty loolu rot des na si code bi mu rule ko understand nga but lu ñooy wax mooy justice delay is a justice denial Wow, that's very true. Um, Hamga, um, mm-hmm. they said um, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Yeah. So, danga gis nene, dara su nekkee di happen loo xamante ne uh, it's not okay dara su nekkee di happen loo xamante ne it's not okay. Mm-hmm. yow mi talk fële nekkut di la dal. mun mm-hmm. ngaa wax ne ne uh, du suma business. du suma business it's not my concern you can say that. yeah but let me tell you um, if that injustice continues. tomorrow mun na laa dal yow yow sax mhm. benn bés dina àgg si yow mhm. so loolu moo tax dara su nekkee di happen loo xamante ne uh, people feel that and people observe it very well and end up understanding that what is going is not okay mhm. uh, is definitely waruñoo toog ñu xoolee ko noonu comme uh, affaire bi du suma bos wala du suma lii waruma si waruma si duga waruma si wax dara that one is not okay so dara soo xamante loo xamante ne is not okay du yoon ñun ñëpp suñu responsibilité la pour ñu jóg ñu make uh, you make sure that is, is mm-hmm. Also, ñoo xamante ne ñu ngi um, ñu ngi ñu ngi advocate pour bop trial bi mu gaaw also. Mm-hmm. Uh, they also have to make sure they maintain mm-hmm. peace. yeah. loolu am na solo bu baax ci def. they maintain parce que anything luñ def mun nañoo indi beneen problème ki bop waaw understand nga. waaw uh, waaye Sirif uh, démba gis nga bi nit yi ñu ngi ñeneen ñi ñu ngi soloon ay tisaat firi Bob Keita ñeneen ñi ñu ñu ñu ñu ñu ngi ñu ko binda si paper si hmm. si court house bi gis nga eh, eh, xam naa kii mun nañu ko Yusufa mun nañoo wanaale foofu rek hmm. eh, démba gis nga foofu niti nuñ fa baree young people are everywhere so lu ma leen doon lu ma liñ liñ si biir code bi nag xamaguñ si dara euh, parce que euh, mënutoon na dugg si biir waaye suñ reporter bi di Aïssatou Koli euh, ah. mu ngi woon si biir xam naa ne nag dinañu ñëw waa exactly lan moo xew ak naka la xewee kon nag nan xool nu mu faa demee yéen a ngi dégg mu doon liggéey di contribute ci ci réew mi mu ngi amee woon on company am create employment ak yooyu noonu nga cël ko teg ko benn place muy dama ko ñëw tey nga ne jooj bi dafa feebar ëllëg nga ne jooj bi motoom bi ku ko drive faam bi nekkul fa gannaaw ëllëg nga ne lii yooyu moo war a jeex Gambia yaa ngi understand waaye ak luñ ci munti demee rek man li maa wax luñ ciy demee nañ ciy demee ak discipline mm-hmm. parce que nit boo koy dimbale mm-hmm. danga ko dangaa ànd ak discipline mm-hmm. si nga ko gën a mun a dimbale waaye soo defee otherwise mun na moo jur leneen yaa ngi understand lii mun naa wax ne comme képp ki nga xamante ne Euh, yaa ci réew mi mhm. kon concerne la si yow parce que lii suñ ko tray nit yi xeex ko ëllëg kenn xamut kan la moo ñëw dalaat mhm. understand nga mhm. léegi te loi bi kenn mënu koo teg ci sa loxo bi moo tax delay of justice mun na moo indi ay mob justice ay yooyu noonu nit yi jël loi bi teg ko seen loxo yi waaye li ñoo wax rek man li maa wax rek let them be patient Mhm. let dem bi kaam ñu ànd ak discipline mhm. ñu bàyyi gars yi ñu seet affaire bi fan la moo mujjee parce que right now nii gars yi du ñimeñe def dara li nga xamante ne dafa nekk otherwise foul play anything parce que people are watching mhm. lii case bi ñëpp la concern everybody in the oh, xool naka la ñoo demee about this case waaw lu nekk xam nga um, lu nekk soo ko def nga teg ko si yoon moo gën um, Sony Kd if I right in Nikki, mm-hmm. for Hamantene already. Um, the person has been in jail for maybe two years now. Mm-hmm. So moom si boppam du nekk intention am pour mu gis ñoo xamante ne ñu ngi create violence. Mm-hmm. Um, si si on behalf of him. turam mm-hmm. yaa understand. so mm-hmm. it's important for people to go to show their support but um, let them make sure because on Thursday the case will be proceeded again yeah. on Thursday. So we're expecting because last time the court said they are ordering also for other samples to be collected again. Yeah, because yes, mm-hmm. different samples to be collected again. So Thursday they will go back to court again and see um and and and, and f- from there they will know their fate again um regard regards to what would come uh, next. So if you're going out, go out and support peacefully say what you want to say but make sure also uh, be mindful of what you are saying and you know your behavior also is very very important and um, let us also uh, make sure our approach to people that are leading in our justice society also mm -hmm. is, is is respectful is put in accordance you understand mm-hmm. boobu am na solo trop so loolu lañ amoon loolu laa amoon rek pour uh, seya ko waaw am na solo Sirif li nga wax noonu uh, uh, démba gis nga paraam ñuy woon everywhere PIU officers there si mm-hmm. ndox bu sedda mm-hmm. ba sànni wuñ tear gas oh, <laughs> defuñ seen matikal <laughs> boobu dinañ leen si congrat Wow, wow, wow. when it comes to wow. when it comes to wow, wow, wow, problems sometimes. exactly um, sometimes um, because yeah, anything any any any minion wow, wow, yeah wow, wow, wow, yeah so <laughs> yeah my, myself myself mm -hmm. um yeah, this was this was in Brikama mm -hmm. um national assembly election wow, wow, wow, gas mm -hmm. wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, I have to just come and collect the camera. Yeah. And, and, and Sirif, mun, uh, uh, Yusufa, mun namo in the opinion of the director. Yeah, well, uh -huh. well, no problem. Whilst you continue uh, talking. Mm -hmm. Yeah, so mange mange whilst mange prepare mm -hmm. <laughs> the brief suma collègue bi ne mm-hmm. nu maa gisee eh, action bi di demee mm-hmm. xam na nu mu faa demee pia yooyu dañoo ñëw te suñu ñëwee tamit eh, there's mm-hmm. likely dañoo sànni daal te noonu la xamu ne exactly that day waaye tàngoor daal dara talut ñu waaye gis nañ ñu fasoo trop so um, no, professionalism in any work is also very very yeah. important, from the security person yeah. we are seeing security sector reform mm -hmm. nga ñëw wax yaay kenn ak tur bi ah, man maay Mansour Badji ah, waaw student at the University of the Gambia and double as an lecturer at the Gambia very good ah, Mansour tey ñu génn si rek ah, pour waxtaan ak askan bi ah, overall rek ñu wax ñu naka lañ gisee suñ justice system bi parce que dañ dee gis yu baree baree bari ni moo demee si dëkk bi nii it's not right ba pare ñu bari dañ feel like ne comme justice bi kumba mu am ndey la ak kumba mu amul ndey la dañ dee feeboo comme like yeneen parties yeeg yooyu noonu so nit yi feel like ne justice is not serving naka nga ko gisee Okay, um, with the issue of the scene, boy, um, I'm not that much familiar with the scene waaye lu share in terms of the evidences that we prepared um, si justice bi am the evidences that we normally produce at um, our justice sometimes do they enough um, putting it mën decision to call of a case like for instance um, you know a case being nga xam adjourn for multiple times and you realize that some of the evidences that buñ require punitive produce need to duñ ko produce so Fognane, we need to have a justice reform where we need to look at, you know, the evidences that people should produce so that at least, you know, timely um, um, timely recommendations and timely, you know, presiding over cases could not take place. Because that was frustrating. You know, into a case, you know, you come in for going back and all that. So there should be a framework should be able to determine clearly what evidence should a party brings and from you know what basis should you know the the legal officers, you know, preside over that case and be able to bring, you know, a solution to that. Mm -hmm. If not, um, ñiti suñ demee be frustrated. da nga gis ne duñ am yaakaar justice mm-hmm. ministry bi. Yeah. at the end of the day loolu dafa dafa indi effet dafa indi yeah because loolu la because da nga gis ne sometimes most of the justice um, cases, um, um, lu dee xew mooy after the presiding wala after the judgment ñiti duñ just satisfied with some of the you know recommendations buñ dee put forward so foog naa ne loolu yëpp soo gisee mu am because we don't have that you know, a um, proper legal framework. So man, um, my suggestion would be we need to have, um, should I say, a reform in the justice ministry. Possibly we look at some of those protocols guiding, you know, the way we fetching these evidences. Monaco, I mean, so that at least uh, we'll be able to have our um, cases being presided over in a very fast you know period of time and people are also satisfied to some extent uh, yow do you think enough ne uh, uh, yow uh, case bi right now ni ñu ngi ko ajoon fa times yow naka nga gisee loolu mus nga gis case bi hamantane because there is amul fenn fu mu wax si luwaa bi ne case mun nga koo ajoon thirty three times yow nga téene ki war ko yobu court nga yobu ko remind mu toog fa sentana goo fa mu two years every day nga ajoon koosam bi tey ñu ne ah, lawyer bi dafa feebar gannaaw ëllëg ñu ne drive farm bi moo ñëwut naka nga gisee loolu waaw foog naa comme lu ma rek problème bi dem na ñëw na moo is about the protocols that we have in governing our justice ministry I understand problème bi yëpp la like comme um, cases yi they differ we understand that some cases could take a, a longer period of time because some of the evidences you know you have to prove it beyond reasonable doubt balaa ngaa mën a conclusion so the longevity might not be a problem. But the issue here is when you fetch those evidences should be specified and should be clearly mentioned to all the parties so that we don't have to stretch you know the case for almost two, three years. Because it's an issue of a rape case. I'm not that much familiar with the with the case. But Hamdan, at least if you know there was a better homework that was done at the initial stage, we don't expect to come up to this end. So we're supposed to have that resolution towards you know yeah. Because in uh, the rape case, to involve a rape case, I think uh, um, the person involved in the rape should be taken to the hospital and you examine Cassandra whether she was raped or not and after we see how to do but you understand well, that depends so you know i'm not that much a legal expert but what i understand is depending on the cases that we present you know um, um in, in the court so it is up to the judge to moment determine what form of evidence is required by both the parties. So I don't want to go more into that, but depending on the scenario and depending on the circumstances, you know, the lawyer could recommend any form of evidences. And possibly, like I said, that could take a whole long, longer period of time, depending on what the lawyer requires. So I think that the longevity is not a problem. But what I am saying here is the evidences that people need to, to produce so that at least at the end of the day, they'll be able to preside over the you know, the cases and be able to bring out the resolution should be specified correctly. And this is why we need protocols. We need reform towards that. Yeah, I think that would be my take. We need to look at the evidences that people should produce to be able to get that verdict, to be able to take that verdict towards, you know, you know, making a judgment of a, a certain case. overall advice to the youths? Paske gis nañ ne all this while ñu ngi génn ñu ngi lii am yesterday gis nga ne fële bundum koor dafa feesoon tep euh, the euh, security were there yesterday mun nañu wax ne at least at least for a longest time now, Nema security at least behave well because uh, the push and pull was there, but the acting sanni with tear gas. Uh, ah, yo, lan guy, what the youth out there, whether they were a patient or what, because eh, lua bi ak lu them demee war nañ leen a mun a bàyyi ñu def Well, liggéey. waaw loolu moom dëgg la um, freedom of speech, freedom of expression is very, very important. Well, I come to my advice to the youth would be uh, we, we, we should also be careful because is a case that we are yet to get um, judgment, you know, from, from the case. So the evidences that are coming up possibly might not be satisfying when it comes to the dimension of the jury. So loolu moo tax dañu careful it is good that we be sympathizers but dafa am yoon use we don't have to be violent and all that Wow. so in law you could be sympathizers that is fine but you cannot go extra miles trying to create you know commotion and all that ñu leen koy indil Monday bi Thursday di si waxtaane current issue yi wala burning issue yi ah, comme ñu ko dee waxee rek li ay di jàmbat tey nag ñuy waxtaane ah, li nga xamante ne fan yi yëpp moo réew mi coow li bari ba bugg a ah, mu nekk kontaan si réew mi yëpp nit yi di ko waxtaane ñu indi ko rek ba léegi mun ngeen a koor rek nee naa leen ne si 9 794 seven 9214 794 9214 pour ngeen joxe seen contribution tamit dina am solo euh, dégg ngeen ñu si biti tamit euh, ñooñ tamit seen opinion yi nit yi nga xamante ne tamit euh, génnoon nañ Westfield waxtaan ak ñoom ñoom tamit joxe nañ si seen xalaat ndaxte right now ni kenn warta assume comme ni nga ko waxee understand nga everybody nag is entitled to his or her opinion ba nga xamante ne mun naa wax naka la ko gisee ñeneen ñi ñu ngi doon wax ne comme ni ma ko doon waxee sa rek case bi dañ war a drop case bi dañ war a bàyyi yëpp ah, ñeneen ñi dañ ñaawlu ñeneen ñi ah yaa mune ne na luy ay di jambar fimne ni ciow li bari ci rew mi ba bëgg dé about keesi bob keeta bii nii euh, ñu baree bari di wax ne euh, euh, justice bi légui kumba mu am ndey la ak kumba mu amu ndey la yow naka nga gisé case bi man kay daf ma jaaxal man démb laa ko soga yek yëg mo man mo li xew suma doom ma wax expliqué na ma way man niñ ma expliqué na mu jaaxal ma parce que nit ak doom doom ni mel si hall nga dugaa sa doom ci moto nga faate ko fa four hours lolu mom mo man bañ na loolu dafa jaxasoo nañ laaj yaay ji nañ laaj yaay ji affaire doom diggante yaay doom ku nekk xam na ko ku am doom rek xam nga nu doom mel sa doom doo ko fàtte si moto foo awas sooy wàcce ji suloo ko sax sa xel mi dal ko di nga doo génn sa bàyyi sa doom man jaaxal na ma daal ñu ne si mbiri tuxu lañ nekkoon ak yooyu noonu dañ fagoon ne dafa ànd ak nijaay ah loolu moom dafa doy waar de man day jaaxal na ma bu baax sax waaye diggante doom ak yaay yaay ak doom ni mel ak doom ni mel si yaay góob ma nga fàttali. naka nga gisee eh, justice system fii. ah fi mu nekk yëf yi daal doy na waar torop doy na waar parce que lii moom dafa àtte boppam lii moom àtte na boppam yaay ji nañ ko laaj mbiri doomam yaay ji àndoon na doomam mun koo fàtte foo awas nañ ko laaj mbiri doomam yëf yi dafa sérieux sérieux na moom man démb laa soog a man yëgu moom li yeew suma doom jéem a expliqué na ma ne ko loolu moom ëpp na ma ne ko lii nañ laaj yaay ji naka la mun doomam foo awas. ba dem ëlbatiku ñu ne mu fekk doom ji dee man yëpp sax xaw ma ni mu demee su ma doom dama expliqué yëpp si ngoon expliqué ma ne ma yow yëguloo li xew yaa ma ne ko lan la mu expliqué ma ne ma xale bi affaire kees kii bi mu ne ma téye nañ ko two years atte wuñ ko ñu ngi ko tëjoon afta biñ ko lifin biñ lifinee ñu ne doom ja xaw ma yaay ji daf ko fàtte man daal yëfi aw ma ci lu leer waaye daal jaaxal na ma daal jaaxal na ma parce que man du ma àndaa suma doom di ko fàtte gannaaw loxoom laay téye wala ma fob teg suma kaw ma fàtte suma doom gannaaw diggante yaaya doom ni doom mel ah nañ laaji yaay ji daal waaw eh, eh, eh, justice bi ñu bari di wax ne kumba mu amul ndey la ak kumba mu am ndey la ndax loolu am na ah, parce que lii moom dafa nekk loo xam ne dafa àtte boppam ba pare daal justice bi nañ seet rek niñ war a àttee ñu seet naka la parce que lii moom dafa di njaroos lii daal man daal lii su ma wax daal mu nu cee sori parce que ni ma déggee man daf ma jaaxal dé mbalaa ko yëg waaye bi ma déggee tam niñ expliqué su dee noonu la demee du ma suma doom si moto di tuumal kenn Eh, balegi rek eh, Sirif eh, nga mi dégg nga li gars wax nekana na li nga xamantene ne ñeneen ñi balegi rek afta biñu gëjë tamit ñu ngi doon laajte nit yi naka lañu gisee xale bi nga xamantene ne dañ ko bàyyi ci biir moto bi fa fo awas ñeneen ñi ne sàggantale ñeneen ñi mënuñoo understand daal loolu. waaw <clears throat> comme lu ma wax rek ah, loolu pour understand ko dina jafe. Mm-hmm. because ah, num mu demee. um, such a problem. Why, no matter how the issue is, um, we hoping uh, that police they the their investigation, right? Investigation. See, see, see issue bobu nono mm-hmm. because who gañu you know, doomi adama la yeah. te life la amé te te dafa disa pour dunda dafa am right to life you understand mm -hmm. dafa am right pour dunda so yeah. they have to make sure they mm-hmm. investigate mm -hmm. that yeah because always dañ dee wax ne wenn one life is not important then any other life is not important every life is important especially ki nga xamante ne xale la innocent la xamul dara mm-hmm. ah, su ko defee nga gis ne nit yi eh, sooy xool xale bi eh, ah, dafa dee si condition yu métti sirif mm-hmm. ah, parce que comme ni nga ko waxee woon si njëlbeen mag sax boo ko bàyyee ci biir moto mm-hmm. nga lok weer yëpp amut air amut benn oxygène waxuma la four hours sax but within one hour rek da ngaa suffocate understand mhm. surtout kuñ fa bàyyi neyali four hours mhm. waaw das das das das das xam nga mu laa woon ne xale bi lii dëgg dëgg dëgg yàlla he die a painful death Euh, ñu koy ñaanal saasu ne rek euh, mm. ya ñu ñu naka la ñu xarala ko ci arjanay firdawsi yàlla xarala ko ci arjanay firdawsi euh, Child Protection Alliance tamit ñu ngi doon wax lii tamit image yi xale bi nga xamante ne ñu ngi ko nekk di partager di ko def ci plateforme yeeg fu nekk tamit suñ ko munee bàyyi tamit mm-hmm. because gars yi rafetlu wuñ ko daal parce que waruñ koo def. waaw according to luñ wax. àndut um, ak luwa. Um, nit ñi def nañ ko lu bari ni ñi def nañ ko. ñu def nañ ko seen ah, plateforme yi ñu bari. moo tax it ñoom moo tax it ñoom buñ waroon a. génn pour wax dafa dafa dafa. jërëjëf waaw dañu waroon a teel a génn. Mm-hmm. Ah, wax lii since boom started it happened. Mm-hmm. even if not uh, they uh, uh, about the death of the. child Um, instant bi suñ fa mun tawa instant bi waaye image bi doon saakule sax they should be able to do that since mm-hmm. that is people should question their work yeah ñoom sax people should question their work definitely ah, ah, where they sleeping mm-hmm. bu nit nekkee di génn image bi di saakul plateforme bu ne ñu teg ko fa mm-hmm. tiktok beeg eh, fu ne ñu teg ko fa understand nga so that's it eh, kii su ko defee nga indiwaat keneen ki rek den after loolu suñ paree ñu raapo rapport rek eh, dina li indi indil ñu yeneen yi ba léegi rek mbokk yi yéen a ngi seetaan Gambian promotion rek comme niñ ko dee defee saa su ne rek. mbokk yi léegi rek comme ni leen ko. Uh, tey nag comme ni ma leen ko waxee fan yi nag lii ay di jàmbat moo tax ñu waral ñu topp ak case bi nga xamante ne mooy uh, this ongoing ongoing case bi nga xamante ne uh, mu nge dem court muy case bopp keeta bi Ah, nit yi nekk li nga xamante ne coow li bari na si wax ji bari na si nit di génn fu nekk ku nekk di génn di wax ah, pour rek ah, justice mun a am pour ñu xam ndax Bob Keita su fekkee dafa innocent ñu bàyyi ko su fekkee dafa guilty tamit ñu sentence ko mu saaf li mu war a tëdda mu tëdda ko su ko defee mu génn parce que lii dafa yàgga two years ñu jël la teg la benn place àttewuñ la defuñ la dara demal ñëwal tamit beneen problème la euh, mu doon li nga xamante ne askan bi looloo tax ñëpp génn te rafetlu wuñ naka lam nekk di demee euh, ñu foog ne daal gars yi dañ bugg a jël affaire si def def ko yëfi euh, mooy loolu fa appelé te nit yi bugguñ koo gisee noonu coow li bari si diggante seena bu mbay tamit bu baax a baax a baax parce que ñu bari sirif ñu doon wax ne moo jamaa yaa ko ase dannuyi teema mënoon naa am si seen biir ñoom mi neen ñu waxtaanee ko as family parce que tey su fekkoon ne eh, ñoom dañ gisante ñu buggante ñu sey su doon bugga bi buñ doon oote mu fa ndax ñu ne lii dina am waaw même mu ak lu mu ci doon tamit mu ngi am ak moom ñaari doom loolu yëpp xam nga rek nit ki mhm. da nga xam nga dafa mel nit ki nit war na faatee démba tamit mhm. xam nga dafa important foofu um, it would have been best suñ dee toogoon nañ what and why people are driving old oh, people are driven by their own sentiments most of the time so that is the problem mm -hmm. um, most of the time nit su meree daf dee act at the end of the day dafa def loo xamante ne sax at the end of the day daf ko réccu yaa yaa daf ko yaa moo tax dañ de wax saa yi nekk soo meree rek da nga a so but then it would, it would have been better pour ñu toogoon together mm discuss anything regarding that mm discuss on ko mujjee because even today dara xapunut seen diggante waaye mm-hmm. um, at least um, doomaang seen uh, te dem na ba ñaar so um, it's something definitely um, was not the right solution mm-hmm. definitely yeah uh, was not the right solution uh, Youssoufa mun ngaa teg boobu rek su ko defee suñ paree si bobu rek ñu tëj rek comme nuñ koy defee saa su ne ma ànd seeg sirif rek uh, mun ngaa teg boobu rek ñu tëj le kontanan dembe jangal konton bake ito di madu to mu dembo sane lete dembo sane mu men danko nte bota welin karale ite bota welin karale ha uh, ni watin kono be ni ya moy komin ka fo nyamen dorong ni banko be le ka fo sane aban bob la keso kono uh, silang ni itale overall tekniaji ite ye nyin ko je nyamen anin gambia la justice system o be nyaadile nde aje nyamen to nyama amambete am fe duniya fengo fen anyante kala suturo suturolete la muso anyante kala suturo suturolete moli yake inyante en kumbannale kitilal manyenda kutala en kuntu nyin koy bang dunia duniyaamu wolete anende kala suturo nin tanko wolete ndammal tema bara mangena kala ndi fo taten fa ko e janja mambete awo nyama amandi anya fere man amandi anya te muslimi ko na mambete ha Uh, ah, Gambia la justice system o yaje nyameni dol ka dol ka fole ko atata kara kilinne fo to nyama ha ko ma be nyamen to anyin do de mo dollo bari ndo kata nyama manta ko amangena kala nyama wo kiitiɗol mool loŋ bari ɗo kiitiɗo kata ñame a kata ñama mangena tala ñama duniya kono misilime a ñanda sutura la le wala misilime ati nga ñoo makoye nga ño sutura bari mangena janjanna te aɓe ñamenta amandiyante feren feren fere amandiyani ha itala ɓe muna yamarla ko musukunda to ɓe muna yamar nde ɓe me yamarla musolla karola musu wo musu natara musola mutu imente e musu ya long iñante hakkilotu la kewol tole mawme ni ye yenene koɓe menkele ñin koɗole ka kuwo betiña isi dindin dindin ja mamme san sa ya dindin mad ay silomte na ben silo kan suta be yayla ita fe on fende fokko ɗo nte ka musole muta kula wala baka molu nyante si sabati musole sabati ni ala ye sokke wala ye futu bani man futu be je ni nini wol dunta nyola don aɓe kala kulete me alon ka mambete amalo ka waran ni alfa alfaali ɓegol kulate kan amalo ka wara bakela mangena ka kala so la so ni kata futu wala comme san kol kata ta nyame nga fo ko nyapin kangol ka siale eh bayri san ka jele ko hani fadol fang ika nyapin kang e dingol la wala hani ika e dol ke nyapin kang e mbarin dingol la san fo anyantale bang ni muso kata le, ye ye sunkuto mem menta ye wodi ala ini e ani woyata ha ya long o be nyame nyama ni aje ika e nyapin kang ke aka sumu so ni tata e kodo dile muta sama adile yamuta sininde adila nya pite naye kilulata sinya peke mankunoje la ka beke ika kodole dila musole ka nili la wala na ni mete mete ka pika ha ha muna ba kala ila yamar lodi comme ke la karola kala na di funding ke wolo nga kata sin haklotu to musol le samati bari la momo kata nyaaw nyaanya musolle alfalde itolle ka kewulu tolle ka mansal to tolle ko o tan sin hakilotu musolu to ni kata nyaaw nyaanya man ni muso nata e tara e nga fakiliye futu ni man futu fana banyaji be nyimu dinni walati wata bulaje fatama lafta wala yamaro kela mhm. yama bare barka bake nge kontong bake ila kumo ñi ñaatale ah, jërëjëf ah, si kooku noonu waxaam bi ah, ba léegi rek ñu ngi fii ni am si west bi rek di waxtaan ak nit yi di leen laajte naka lañ seen opinion naka lañ gisee kees bi mu nekk li nga xamante ne am na solo lool bu baax a baax a Ah, jërëjëf Youssoufa si liggéey bu rafet boobu noonu am na solo ndaxte comme ni ma ko waxee génnoon nañ waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy askan bi laaj leen seen opinion seen overall take about this case ñu bari ku nekk am nga wax nga sa am nga gis nga am nga si different view comme ni ma koy waxee saay nekk rek everybody's opinion matters réew mi ñu ñëpp ko bokku te lu ñëpp bokk lu ne ku ne nga ca kenn ku nekk am na si cër kenn ku nekk am nga si xalaat kenn ku nekk sañ nga nga gis affaire bi nu muy demee neexul la nga ne lii ni muy demee neexul ma not pour ñu génn a xeexal bopp Keita kese rek waaye for the whole Gambia parce que li nga xamante ne suñ ko bàyyee mu law ëllëg kenn xamut kan la moo dal si ëllëg mun na moo dal suma broda gannaaw ëllëg mun na moo dal broda keneen gannaaw ëllëg mun na maa dal so it's better ñu fight ko once and for moo tax ñu buga a uh, affaire bi mu tegu ci yoon ñu teg mbiri yëpp ci yoon ba nga xamante ne justice dina serve well foog naa ne loolu am na solo tamit uh, li ñuy wax rek uh, Sirif dégg nga nit luñ wax mu nekk lu ama am solo oh. eh, parce que kenn rafetlu ko daal affaire bi nu muy demee kenn rafetlu ko ñu bare ngee wax ne mënoon nañ ko waxtaanee seeni biir mbokk mënoon mm. mm. nañ ko waxtaanee seeni famille ba kees bi lu egga fini eh, eh, wala mënoon naa seet moom moom ki nga xamante ne mooy jigéen bi mënoon mm-hmm. naa seet at li su du dara sax mu ngi am ak moom doom ba pare am fi nga xamante ne ñaar dem nañ fa nekk na li nga xamante war nañ see bàyyi xel bu baax a baax baax as ah, Guinea. waaw mhm. um, just ma conclude rek. Mhm. Um, moo nekk rek anga tamit nit uh, na nit ñi tamit learn lessons. Mhm. understand um, Gambians yi. we this is a lesson for all of us. it's either ñoo xamante ne they are with the uh, lady. whether uh, people that are with the perpetrator the elect. arbitrator. Mm-hmm. Uh, but it's a lesson for everybody to learn. Yeah. It's very important mm-hmm. for everybody to learn. And mm-hmm. also to know um, suñu life bi tamit suñ dealings bi ñu ni neen ñu xam naka lañ koo solve because uh, problem sometimes su start yi um, da mun nga mer nga start problem waaye at the end of the day doo dee xam fu mu definitely so um, foofu lay stop daal na nit uh, learn lesson and try to solve things within uh, themselves mm-hmm. thank you very much Sirif loolu am na problème uh, am na solo bu baax a baax a baax uh, saa yu ne lu ñuy wax rek mooy comme ñu ne mbir adati dulaay ka wala loom bari a laban dulaay bu ka wolong mm-hmm. loolu jar na ñu bàyyi sa xel bu baax a baax am na yeneen yi nga xam ne parce que am na lu nga xam ne su xasee ba dugga ci loxo luwaa rek mm-hmm. pour mu génn fa dafa nekk problème Euh, parce que loi teg na ci loxo ba pare pour mu génn fa dina nekk problème waaye yëpp ci beginning bi la rek mun na ñoo xam ne mun nañ ko xoolaat seetaat ko parce que sooy xool bopp su bañoon seena bu du ko dem taka seena bu su bañoon bopp du ko seyal soo lii moo tax waruñ woon a egga fii euh, moo tax ba pare nañ xool si njaboot gi nañ jël yëpp daal ñu teg ko si suuf ñu génnee bopp mu continuer liggéeyam parce que xale la te ndaw la te te yoonam da sori euh, su ko defee jàmm ne ñooy jàmm amaat si dëkk bi yuut si kaam parce que right now nii everybody is angry kenn ku nekk mu ngi cee wax loo ci xam ak loo ci xamut parce que ñuy wax yëpp ñu bari ñu bari xamuñ ci dara sax dañuy wax rek loolu war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax euh, su ko defee di leen gërëm di leen santa bu baax di len wax ne ni lañ koy defé ci biir Gambia challenge sa su ne eh, dinañ len di indi li nga xamantene moy konsan li nga xamantene nit yang koy waxtane lolu am na solo jox len tek daje ba elek inshallah allah si beneen biir Gambia man ak Sirif ñu nekkon fi rek mu doon lu am am solo Sirif mu nga tagato waaw ah, ma ngi nuyu nit ñi. ñu mm-hmm. nekk di seetaan ah, depuis si biir Gambia be fi be outside yep mm-hmm. maa ngi nuyu len wax ne rek sen programme la won ah, biir Gambia. Um, maa fi nekkoon uh, ak suma collègue Ramatoulaye Sirif Lac Ramatoulaye um, ñu ngi leen a wax thank you very much be next time